bi mi di tegee ñeent fukki minutes ak juróom-ñaar la ñu nañu am na benn atelier buy pièce détachée buy làkk fële ci marché Daaru Marnaan ca Touba noonu suñu oto bi njëkk ñëw mu ngi ñëw bi mi di tegee ñeent fukki minutes ak juróom-ñeent bi mu ñëwee gis na lakk-lakk bi ni mu toll ak doye bi ni mu ak ngelaw li ni mu ëppee propagation bi ni muy gaawee si saa si mu demandé moom it ay moyens ñu ko ñëw jàppale yeneen oto yoo xam ne dañuy ñëw jàppale pour ñu fay lakk bi oto yooyu mën nañ ci wax oto Jurbel oto benn jóge na Jurbel benn bi jóge Daaru Muxti benn bi jóge ak bu Tuubaa bi ak yi dool jéem a ñëw waa Kaolack Kaolack ñu ngi doon ñëw mooy Fass Barigo ak Gossas ñu ngi doon ñëw ci yoon pour renforcer leen mën nañ wax ne oto yooyu yëpp ñëw nag ak Touba si kanam yi ñu fi fekkoon juróom oto yooyu yëpp ñëw ñoom ñoo ñu permettre ñu fay lakk bi sinon naroon na fi gën a métti ndax ñoom ñoo si jàpp oto yooyu yëpp ñu fay ko ah ndém nag kenn ñàkku si sa bakkan waaye mën nañu wax ne yàqu-yàqu yu bëri na parce que chef garage bi ki nekk responsable garage bi bi ñu defee tournée ak moom compté nañ ñeen fukk ak juróomu cantine yoo xam ne lakk lañ waaye kenn ñàkku fi sa bakkan mooy yooyu moo ñu permettre ñu fay lakk bi waaye nag maa ngi koy leeralaat kenn ñàkku fi sa bakkan waaye yàqu-yàqu yu bëri na loolu lañ amoon ci li ñuy wax